الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم bokki ɗi fitte bokki tali bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di am mbégte ci jataay bi ni ko sëriñ bi wax jataay woon nañ ko daaw yàlla fekkee la ñu ren yal na yàlla dolli tawfiq ak ñun ak seen xarit jamono bi li may wax ni suñu borom dafa séddale lépp nahnu qasamna baynakum maishatakum baynakum maishatakum fil hayati dafa wax ni léegi seen dund dama leen ko séddale ci dund ak nag waaye noonu mu séddalee ak dund nag séddalee ko cër yi kenn ku ne mu jox la juróom-ñaari cër mu soxlawul ngay àbb lenn kenn noonu la ñu seddee kilifa ba jëluñu ñu koy jëkkaani tan waaw jamono ba ne may wax ne boo leen koo seen muy dox ñaari mbir lay sàkk loolu la suñu borom def ci àdduna muy muy dox rek ñaari mbir ba tax a jóg wut ak mucc ak wut xéwal mucc ak xéwal ñooy ñaari baat yi nga xam ne ko seen muy dem benn ci ñaari yooyu tax a jóg di wuti xéwal wala muy sàkku mucc loolu la suñu borom dogal te doomu aadama it ci biir wut boobu muy wut mu a mucc ak di wut xéwal it suñu dafa def mu umpule ak umpule la yàlla def ci moom hmm. kullukum daalun la yàlla te wax illa man hadaytu loolu xadisul xudsi la boo xam ne suñu borom moo ko wax jaarale ci laam ñaan te mu wax ne samay jaam yéen ñëpp réer ba mu des ki ma gindi teg ko caw yoon kullukum daalun illaa man hadaytu fastahduni aatikum kon sàkku leen ak gindi ko ci man ma gindi leen bi loolu amee bi ñëpp réeree doomu aadama yëpp umpule duñ xam fu ñuy jaar suñu borom ci taw fii xam ak bu baaxam ci la yónnee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu gindi nit ci seen réer googu ñu nekk mu xamal nu ne ku ko ci topp da nga gindi ñu war caa jaar ngir gindi ko it muy alquran Serigne Touba ci ni mu àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi dafa wane ni ma ci jàppee ñu ngi mel ni silmaxa di jàpp ci loxo ka koy wamat loolu mooy maasikan bil kitaabi maska dariri biyadil qaidi al basir mooy mu jàppe noonu ci alxuraan kon la dig dindi ko ci noonu ñu itam mooy ñu defandoo noonu ci moom jàppe noonu ci moom mel ni silmaxa ci loxo ka koy wamat moo tax tey jii xaj na ab fàttalee rek lay doon sax am njàngale moo xam njàngat nañ ko jàngati bi jàngati ko waaye am fàttalee lay doon wa zakir fa inna zikraa tanfa'ul mu'minin tomb yi ñu andi li li ci gàttal moom lañuy ñuy tuddee ak taalibe mooy teggin yi di jàngale moom la ñuy tuddee ak taalibe xeet woowu yi ci lañ bëgg a fàttali leen te tey jii allah mu mel sëriñ bi teggin ñi mu jàngale ci biir yoonu murid te ñu di ko ak taalibe daf koo tënk ci ñaari xeet ñaari xaaj muy yi ngay sa borom ak teggin yi ngay àndeek nit ñi waaye téere boobu mu taalif tuddee ko nañu xadaayil xaaj yi lépp lu ñu soxla ci ay teggin daf ko dajale ci biir ndax ñetti tënk yi mu ci tënk muy teggin yi nit ki àndee ak borom ak lu aju ci lu jëm ci yàlla ak teggin yi muy àndee société bi muy dund ak teggin yi nga xam ni dana ko àndee nit ki ci bu juyoon moom ay gis-gis lu ci ne dafa am aw waaye nag ba dañoo dugg ci teggin yi ak solo sim am ci dund ab murit laaj na ñu xam ne lan mooy murit bu noppi murit mooy ab jullit bu dëggu bu böyle liimaan ak lislaam ak lihsaan ngërëmul yàlla képp ñor kooku la ñuy tuddee amour kon bu ñuy wax dañuy wax ne teggeen ab yar ak taalibe solo si mu am ci dundu ab jullit dundu ab jullit mën nañoo wax ne dundu ab jullit rawatina ab murit ndax murit du kudul jullit bi nga xam dara ñëwee ko dul ngërëmul yàlla te suñu borom bi wax mooy wa ridwaanun minallaahi akbar ngërëmul yàlla mooy li gën a rëy lépp kon bu nu Sëriñ Tuubaa joxañee ne ñun wut leen loola kon seen la gën ci mu joxañ waaw te dafa wax ne isil muridu laa yuridu abada xayra ridar rahman mu doon loo xam ni it dama ni day aw nii boo xam ni jamono bi mu toll nii bu ñu nee murit dana am kuréel bu ñun ñoo ko am kuréel bu jël seen daal force seen daal dem seen yéen ñun bokkate waaye fekk ñu ci ne dañoo jóg ndax jullit lañ jubloo wax bu jullite waaw ku def jullit rek war ngaa mën a dugg suñu borom saxal ko ci alxuraan waxul baatub murit waaye iraada sax na ci alxuraan wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bil ghadaati wal ashi yuriduna wajha yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko bul dàq ñii nga xam ni dañuy nekk ci jàkka ji di ñaan yàlla di ko tudd di ko fàttaliku bu dégg ba tey te bëgguñu lu dul ngërëm ginnaaw mu nga muñ sax di togg ak ñoom wasbir ba téye sa bopp maa alladina yadauna rabbahum bil xadaati nga xam ni dañuy nekk ci jàkka ji di yàlla di ko ñaan di ko sabal fa guddi ak bëccëg te jubluwuñ lu dul fexeel ba téye sa bakkan not sa bakkan di ànd ak ñoom kon day mel ni kon ak ak murit tekkiwul rek bokk ci tariixa sàngam waaye mi jullit bu dëggu ci sàkk ngërëmu yàlla rek bu ne rek ak murit da di nag ni sëriñ Bachir waxee boo dem murit moom taalibe yi tariixa yëpp lañ daan wooye ay murit waaye bi sëriñ bi ñëwee nag yeesal gi ñu yeesal wut ngërëmul yàlla ci xoli nit ñi moo tax ñu mujj ay taalibe ñu den wooye ay murit mu ne nag bu ñu ko waxatee ñoom xel yëpp ñoom lay dem waaye fekk ne ñoom ñu jiitu woon ay murit lañ woon biñ demee nag ba mu mel ni dañoo fët lañ doon jàng lañ doon jàng Sëriñ Tuubaa ñëw yeesal ci xol ay talib ñu ne ko dund war nañu far tuddee leen ay murit keneen bëgg ngeen waaye sëriñ bi ñëpp ay murit lañ tuddee ndax fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida daane sawaun intama ilal jilani aw intama li ahmada tijani aw li siwaahuma min al aqtaabi is kulluhum qat'an ala sawa bi loolu li muy teg mooy kon ñoom ñëpp taalib bi yooyu yëpp ay murit li ma waxoon léegi rek ñàkk xam mooy waral bu ñu nee mot nga daal di jël daal bëgg a dem bàyyi leen teggin ñi nga xam ne nag moom la sëriñ bi jàngale ci di ko jàngale am murit dafa doon lu am solo ci dund waxuma am murit waaye dundu jullit yëpp mu doon luñ soxla ci kum doon yonente yi ñoo jëkk dund teggin yooyu waaye ngir ñu xam solo si mu am ci dundub ab jullit dañuy xam lan mooy teggin yooyu ñu jubloo ba noppi ad adab dañ koy adab adab ci làkk arab nag bu ñu ko waxee mooy woote aw ñam nit bu toggee ay berle woote rek léegi loolu loolu moom la ñuy adab ci làkk arab waaye nag boroom xam-xam yi wax ni jikko yu rafet yi jëfandikoo jikko yu rafet yi dañuy tudd ay teggin bokkut ak jikko buñ ne jikko ju rafet jikko ci biir lay nekk ci xol lay nekk ay teggin mooy jëf gi nga koy jëf ci say cër génn gi muy génn ci cër yi nga di ko jëf loolu la ñuy tudd ay teggin mooy adab loolu moo xaajee ak i teggin jikko dafay ci biir yëg-yëg lay doon bu nekk ci biir bu génnee ci bitti ba ba ba ba loolu la ñuy kon jëf ay jikko moom la ñuy tudd mu mel ni islaam dafa soññ ñëpp ci ñu taxaw ci teggin yooyu sonn ci nit ku ne it war koo tàmbalee ci jëmmi boppam moom teggin yooyu tekki njabootu boppam ay soxna yi boppam ak i doom di leen yar ci teggin yi nga xamante ne moom la suñu borom digle ci alxuraan mu wax ni yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran fegal leen seen bopp ak seenu njaboot safara te fekk googu ci ñetti mbir la mën a nekk ñetti mbir nga man a fegale sa bopp ak sa njaboot sawara muy jàng jàngal leen li nga leen jàngal nga yar leen ci ba noppi nag dëkk di leen ko fàttali foo toll da nga leen di jàngal yar leen ci ñu jëfe ko nga dëkk di leen ko fàttali foo toll ñett yooyu mooy yoon wi ñuy jaar ngir fegal sa bopp ak sa njaboot sawara

nit bi ko suñu borom bindee daf ko bind mu ñàkk xam dara nit buy dugg buy wàcc si fii ci àdduna du fi indaale xam-xam ni mu fi ñàkkee indaale bu bëgg tuwee noonu la fi ñàkk indaale xam-xam noonu la fi ñàkk indaale mën-mën noonu la fi ñàkk indaale ab am-am nit bi mu ñëw fii ci àdduna amul dara mënul dara xamul dara tabuy tamit ñett noonu lay demal kon man ak xam ak am lu gaar la ginnaaw nag nit dañ ko bind mu réer suñu borom defit muy fàtte kon fokk ñu jàngal ko fokk ñu di ko fàttali da di jëf dara it bala nga ko man da nga da ci am benn exemplaire mooy fokk nit yi nag ci sa kanam di ko def nga xam ni kon lañ la doon wax nekk ñii la koy defee loolu mooy solo si yar yar tekkiwul lu dul lañ doon wax ci xam-xam nit jëf ko nga gis ba mën koo jëf moo tax imam Ghazali dafa dem ci benn borom xam-xam benn cheikhul murabbi ni ko damaa bëggoon ku ma tarbiya mu ne ko da dem ci sëriñ bay jàngale xam-xam bu la jàngalee xaw xam ba noppi nga ñëw la ni ñu koy jëfee ni ko tarbiya du dara lu wan la ni jëfee xam-xam loolu moo waral ñett yooyu kon ñàkk yar muy xamle ak yar ci nit ki ak dékku ko fàttali fu mu toll mu muy tolloo ak taxli yi ci sëriñ bi wax ak ak taxliya ak taxliya mooy nga rekki jikko yi baaxul ci nit ki ak taxliya mooy nga takkaayal ko jikko yi gën ci jikko yi jikko yi ñu war a rekki ci nit ki nag door ko mën a takkaayal jikko yi rafet yi bu ñu koy misaal mi ngi mel ni fab nit ki sang ko ba mu nga sol ko mu rafet léegi nag da cee am yu sëriñ bi cité di ko faral di tudd lu bare bare day wax ne léegi jikko yu bon yi da am yu feeñ am ci am yu feeñ am ci yu nëbb jikko yu bon yi feeñ mooy da cee tudd lu mel ni jëw ak rambaaj ak fen ak ak ak ak ak sàcc ak ak ak njaaloo ak yeneen dem loolu mooy jikko yu bon yi nekk ci nit ki te doon yu feeñ yoo xam ne ko dindi ba mu set bala mu mën a takkaay ay gëneel waaye jikko yu bon yi nekk ci nit ki te du feeñ daanaka tasawuf moo ko tax a jóg rëy ak iñaan ak yéem sa bopp ak njëstal ak naw sa jëf ak xeeb nit ñi koo gis yàpp ne ak gën loolu ay jikko la yoo xam ni na lee bari na la bari ni naan sàngara demee njaaloo demee ko sàcc demee ko noonu la jikko yi demee te ñu bàyyi duñ ko ñu bari duñ ko bàyyi xel loolu di nekk bokk na ci li taxoon sëñ bi jóg te alxuraan dafa wax ni wazaro zahiral ismi wa batinahu li feeñ ci bàkkaar nañ ko bàyyi ak li nëbbu ci bàkkaar la feeñ ci bàkkaar mooy leen wax li ci nëbbu mooy li nga xamante ni moo tax al ko jóg te mooy defal jikko yooyu ci nit ki ngëneel yi bari lool waaye mu andi ci juróom-ñeent yoo xam ni ñooy ndey ngëneel yépp mooy nit ki fu mu toll nii tuub tuub li muy teg mooy di dellu ci yàlla di dellu ci yàlla di dimbali ko yàlla di saako mu jéggal ak tawba la ci des mooy muñ muñ ci ngëneel yi nga xam ni nit ki mënu ko ñàkk a takkaayoo ci mbirum diine muy mbirum àdduna nag moo tax muñ boobu la koy tudd la jees mooy adduna yi dafa doon loo xamante ni dafa mën a yóbbu nit ki ci mu def lu dul noonu moo tax day bëgg nga nga nga dëddu ko nga xam ñàkk solo adduna ba nga def ko ci sa xol foo toll di ko bàyyi xel pour mën ko dëddu moo tax yonent bi sans nit ñëw na ci moom ni ko dama bëggoon loo xam ne su ma ko defee nit ñi danañoo danañoo bëgg yàlla dana ma bëgg mu ne ko adduna boo ko dëddoo yàlla bëgg la nit ñi boo dëddoo la ñu yor ñu bëgg la izhad fi dunya yuhibbaka allah wazhad fi ma inda annaasi yuhibbaka annaas ba ci la ca desaat ci ngëneel yooyu nga xam sëñ bi day bëgg nit yi takkaayoo ko mooy alxawfu war raja muy ragal yàlla ak yaakaar ko nit nag man mën naa toog fii nan yàlla képp laa ragal waaye fekk ne bu dara doon teel képp rek mu daw ñu xam ne am na leen lu ma yaakaar it dañuy bëgg nit ki ay yaakaaram yëpp mu aju ndax sëriñ bi lépp daf ko wane ci ay ay ay misaal ñu ngi nett li ni ci mujj ci njaare euh, tubaab bi dafa ñu wol wolu dafa dañoo dañ ko yónnee ni ko tubaab bi nekk Ndakaaru kilifa bi moo lay wax léegi ñu wax ni Serigne Gawane moo réyewoon wagoo wagoo saxaar léegi ñu lu mel ni suuf defal ko ko ci biir wago wi ba mel ni ab ruum ñu wut ay ndaa teg fa def ci ndox wut ay xalima ak i ndaa tegal ko léegi Serigne Gawane luyee wago wenn wago ci junni jamono boobu bi murid yi xam ne tubaab yee koy woon Ndakaaru ñu bañ cee bañ dara ni nag léegi dañoo nar a jëlaat Serigne bi yóbbu ko waaye loolu moom suñu bakkan lañ ci ñu dem tëdd ci raay bi gari na ci ba saxaar bi mënta defar ba dañoo mujj ni leen bàyyi nañ ko daal di delluwaat seen ci kër ga ñëpp jóg dañoo mujj saxaar bi daal bi ñu jël ci oto mu dem ba ba ba ba dogalee ji saxaar gi ci kanam saxaar gi taxaw sëñ bi doog naa dem dañoo wax ne bi ba àgg ci ci bureau ba ko kooku yee doon woo lam jëkk def mooy dafa fab sat la gi mu yoroon sotti ko ci sees bu fa nekkoon ba ñu mën a naan mu fab tapis bi takko ji fab kaayam bi takk ci daal di kàmbal julli ñaari rakka doo wax tubaab bi ne ko loo ma doy tubaab bi ne ko li ma jëkk laaj ma wax ma doy mooy ndox mi nga fi sotti ba mu war a gaal foo ko teg loo ci jublu la ca des mooy julli gi nga fi jël te fii du jàkk loo ci bi ne ko ndox mi ma fi sotti kàlu bii ma war a fii day lu tedd te yéen ngeen di sobe ndax suñu borom moo wax ne innamal mushrikuuna najasun ne ko julli gi ma fi julli damaa fekk ngeen defal béréb bi mu wóor ma ne jaamu yàlla képp a fi yàlla te mu wóor ma wóor ne wóor na ma ne mosu leen moo tax ma ne naa fi jàmm tubaab ne waa léegi kon ga ñëw fii ñu laaj la li nga bëgg ñu defal ko sëñ bi li ma bëgg mënul ko te amu ko nga ko mën te am ko nag defal na ma ko ko noppi neen tubaab ne kon jërëjëf euh, ñoo ngi lay gërëm di la gërëm ku leen ñu kon de ngeen gërëm ko la gërëmat mu mel ni lu mu doon ci lu mu jàngal rek jëmal na ko ci béréb ñu gis muy tuub googu gi waxuma la tuub waaye sëñ bi di daan tuub bay tuub tuub gi day wax ne xataa la huwa atoobu ci tuub gi muy tuub sax dama koy ak yaakaar ak dëddu dëddu àdduna ak nit ñi ورشه نقل للور ني واخني جيروم بن مير موي سبب ورشه تلو سي سومرون تون في القران اسباب الرزق سته محققه تقن توكل صلاه صدقه كذاك الاستغفار والتحرك والكل في القران جاء مدرك من تقى من يوم يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لما كان يسال لما يسال نتيجه بنتر توابي دانيو علماء بو يفالي دانيو ساك بونت يي اب جولي دو رانا مانا جار اوبي لا بن بونت بو خامتين دا حرام ني لا بونت دي كابتي مانا جار بو جال بو تيار بو جال موي بونت ربا سي مثال بلا كين مانا ام كير بو باخ با ام نانغ نانغ دا نا تي وانك لفا تا بولي با نين لا لي نغ ني لا بو يتي نال بو كاي فاي فاي تي نال نيار ربا لا دي دا كوي تا واي سون برام نيو ومن يتق الله يجعل له مخرجا تبين وين نقول بو دون فين كان نكو ساك فيب دا انا كوي لاج دولي لاج نتو لي بانكي ما نسي جال ما سي جال ما سي جال ما جا ما يتبا بيال دون تر واي نك يال دني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث توكل من ومن يتوكل على الله فهو حسبه كو كير لي سون دروم يال دنا صلاه موي جولي بوكو فانكو فانكو لوكو ساك جابو دنا اودو فنتي ورسك لول موي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك صدقة ما وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الراسخين كذلك الاستغفار الاستغفار دفعني فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بجلس موي يموتوا والتحرك موي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه mun nag suñu ko moo tax bii nuy sonal képp lañ jàpp moom mën a wasak waaye juróom yëpp saa yu wasak la ñu nag loolu lépp ma ne kon sëriñ bi juróom-ñeenti ngëneel yooyu mu jàngale day nayi ngëneel yi nga xam ne boo ci jaaree ngëneel yi ci si dañ la fekk mu foofu la war a jaar kon ngir defar net ki ci mu mu rëkk yu bon yi ci moom moom takkaayoo ngëneel yi léegi nag loolu lépp nag bu defaree nit ñi ba mu defaroo dafa war a am résultat résultat ba muy am muy jeexit yay feeñ ci jëmmi nit ginnaaw bu ñu ko defaree jaarale ko ci euh, rek yu bon yi ci moom takkaayal ko jikko yi baax yi résultat bay feeñ ci moom moom la ñuy tuddee ay adab ay teggin moom la ñuy léegi teggin yooyu nag moom la sëriñ bi wax ni mooy liy eggali nit ci yàlla waaye du julli yu bëri du woor yu bëri du leneen yu bëri jëmmi ay teggin مولي مولي أقل نتيال وهنا الطرق الموصلة إلى الله تعالى على عدد أنفاس الخلائق يوني أقل نتيال تولنا نوي منه داني وأقربها إلى الله الأدب المرضي داني ويبتغن تجي الله ما يتجي داني التصوف كله علم تصوف برسوم جاي أ daal di wax ni xam-xam lu bari bari bari bari bari te ëndul xam-xam ay lor lay andil nit ki ab jon fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun illa allah taala waaw moom la sëñ Ba jaxte wax ni amub yaree tax ñu xëy fab nit ñi tegg ci kaw ñakku yaree tax ñu tegg ni ci kaw diko jaw ñakku ñàkkub tax ñu tegg ni ci kaw diko jaw caw sëñ bi wax ni ay da fay neub ak réer di neub askanu kenn bokk askan wo mën bokk boo amee ay teggin dina ko nëbb loo umpalee umpalee boo amee ay teggin dina nëbb sa kër googu yox fii jaxawe la tan boo xob xa nasa bi la wax moo tax am na benn ni kun ibna man chita wabtasib adaba la ka mahmuduhu anil nasabi la la nga cay amee ci ay teggin dana la doy wala si ngeen am fenn la bokk daal ni inna al fata man yaqulu ha anaza laysa al fata man yaqulu kana abi nit dëgg mooy kuy wax ne maa ngi nii waaye du caageen nit mooy kanaan sama baay nii la mel nii sama nga sëriñ bi mu buntu ñetteel bi ci Masaalikul Jinaan mu tënk ko ci ay teggin ak i ngëneel ñu ngi ko tàmbalee ci i'lam habaana allahu fi daarayni bi fadlihi subhanahu nuurayni bi anna xayra ma bihis daanal fata talaasumul adabi xay sumaata mun léegi xamal ne li gën ci nit ki waaje دنتي بنت تارلو موي تقوى تك لانه به الى الرحمن يسير موي ما فهمي تيلي ابي تي الله تيلي دمي الجنه دارني فكل من بغيره رام الوصول كيف كو خاني بغنا اي تي الله بغ جار تي فلو اي تكين لحضرة الله فعمر العالمين نخمي عبد الله كيغا خم دا بغ اي تي الله ام تي تكين دا نجاب دا دا موني واخنا ني تكين دانا كان مو بون خاجون ديني نيت خاج نياري mooy mooy teg daal nag tegini zaahir la ak yu nëbbu bu defee teggin yi nga xam ne dafa nëbbu nag sëriñ bi wax ne saa boo ko ñaawalee bu rafetul rek dañuy dox sa diggante ak pii bi yàlla léegi sëriñ bi bi muy wax teggin yi war a dox diggante nit ki ak borom nekkul di ko lim naan la mi ngi nii mi ngi nii mi ngi nii waaye dalaa wax lay ñàkki teggin sa diggante si borom ñu la moytul ñàkki teggin rek loo defaat nag loolu ñàkki teggin loolu defaat rek ay la njëkk ci ak ñàkk tege ni ngeen diggee borom sëñ bi di ko moytu ko nit ñi yàlla nga di ko critiqué day bëgg nit ko critiqué loolu nag boo bul ni ak neexoon nii bul ni teem wala dafa nii boo ni bul ni lenn lenn ci cri luy nuru critiqué boo def dogalu yàlla loolu la ñàkk wax ni critiqué nitu yàlla wala yii ba ti di leen loolu bokk na ci ñaawi tegi ndigal nit ki ak borom naka noonu yàlla tànn nga tànn nga bëgg tànn ci pegg ba Aminatini léegi soxna si ñuy wax Zeynab bintu Jahsh yonent bi daf ko daf ko may Zeyd ibnu Haarisa mu gàntal ngir raciste gi dox ci diggante ay xeet léegi moom ab Qurayshi yi la doom bàjjen yonent bi sansu waaye nag ayat alxuraan wàcce ni maa kaana li muminin wala muminatin idaa xada llaahu wa rasuluhu amran an takuuna lahumul xiyaratu min amrihim léegi jullit bu góor ak bu jigéen yellu ci ñoom yàlla tànn ba noppi ñuy wutatu tànn léegi mu d'accord ngir loolu yi suba wax waaye teewul nag euh, rëng-rëng am na ci sëy bi boo fi dafa mujj tas léegi sëriñ bi wax ni ba tey gestu bi de xeymee mbaa nga di leen ragal bokk na ci ñàkk tege diggante di teg borom naka noonu euh, du bëgg topp yu yomb yi yu yomb yi yu yomb yi yu yomb yi di ko topp ba tey loolu ay tege nit dafa war a ñeme lu metti ba nga xamante ni bu ñu andee sëriñ bi daanaka mën daan doxee sax lu mu mën a la ci yomb la ci jafe la ci jafe daanaka la soogul jàpp waaye neen toppatoo yi yomb yi daal ñàkk teg naka noonu lu yàlla ci yow nga di ko jëfandikoo te yéene woo ci ak topp yàlla ñàkk teg la ba ci ba ci lekk ak naan ak lu mu mën a doon lu yàlla daganal ci ko na nga ci yéene ak topp yàlla ndax yàlla dafa bind ñu jàmm ko moo tax lu mu mën a ci yéene ak jàmm boo ko defee te yéene woo ci ak jàmm nee na loolu ñàkk ay teggin diggante kek sa naka noonu yàlla yëm yëm daganaan ci yow nga di ko jëfandikoo ba noppi bañ a bàyyi la aram loolu ñàkk teg la neex nee na it nelaw ci guddi gi ki may nelaw bëccëg mooy ki nga xam ne guddi gi dafa naa ne xool jàmm waaye nee na nelaw bëccëg te woon ci guddi gi loolu teg la digg nit kay borom naka noonu it nelaw loolu ñàkk teg la li bëgg bala moo nelaw ne ko nelaw not bu wóor waaye bu mu tëdd fenn di battañe ko di fa xaar nelaw dafa wax yéen bokk na ci ñàkk teggin nelaw guddi gi ñu ne suba la àjjuma guddi googu gàpp ci tasawuf ay teggin nit ki di ko daan doy de lii ak mbaa lii baaxul ci man képp léegi naan du du ay teggin diggante di képp borom sa bopp dara jàppal ni lépp yàlla nga wax ni lenn damay lor jàppal ni lor ci loxo yàlla rek ak noonu julli mbooloo woyofal ko ba saa bu ñu noddee rek nga gaaw daal julli fi nga toog daal dem sa loolu ba tey nee naa ñàkk teggin la diggante nit kay borom. naka noonu tëppal rek bañ naa fi la guddi benn rakka guddi bu jóg ñu nelaw bët si la nga xam ne dañ koo tëppale loolu nee na ñàkk teggin nit kay borom lu mu métti métti nit ki war nañ def léegi-léegi mu taxaw naa fi la doon ci ñaar lu mu nee bu ñu bii mu tuddaat nag mooy weddi wàllu yu ak jegeñ lu boodi àddina yi lu ci ëpp ñaar ñuy weddi nit yàlla mhm. ña ngay def effort pour mën a xaritoo ak buuru àdduna mhm. loolu léegi ne du ay teggin diggante teg borom naka noonu woote maqaam wooteeg wilaaya daa bokk ci ñàkki teggin diggante teg yi mooy ñàkki teggin yi sëriñ bi tudd waxul limul limul teggin yi war a dox diggante teg borom waaye dafa lim lay ay ñàkki teggin ni loolu na ko nit ki moytu nag mu des teggin yi nga xam ni teggin yu feeñ la nga war ko ànde ak mbindeef yi jaamu yàlla yi mu wax ni la ci jëkk ci ay teggin mooy gone na ko yërëm ba mel ni yaa ko jur mag mu ne na ko wekk ba mel ni moo la jur sa moroom mu ne na nga ko jàppee ni sa jëmmi bopp loolu mooy yo- mooy mooy fonde teggin teggin yi nit war a ànd ak ak nit mooy gone na ko yërëm ba mel ni na nga wekk mag ba mel ni moo la jur sa moroom mu ne na nga ko jàppee ni sa jëmmi bopp loolu mooy irham saxiran laa takun muddaxira anhu layaadan min nasihatin tura gone na ko yërëm loo gis mu dig laa biir si te moom rek nanga ko woon waaye nag yërmande mooy lan yërmande mooy yëg ci sa xol bëggal nit ki aw yiw yëg ci sa xol bañal ko aw ay bañal ko bañal ko lépp loolu dugg na la yëg yëg boobu nga yëg ci yéene ko aw yiw bañal ko aw ay loolu la ñuy tuddee yërmande moo tax aji yërëme bala ñuy tuddee nit rahim ni kii mu ngi yërëme yéene xol jooju day ànd rek mu jëf ci la man bu dee dañ ko war a fexeel mu fexeel bu dee ko war a defeel mu defal ko waaye léegi waxuñ léegi nit ki am jafe-jafe ñëw tiim ko naan daal daal ne andaysaan benn daal dem seen rek ko ngir bu dee lor la ju koy lor nga fegal ko ko bu dee ndimbal li ñu ko war a dimbalee ko bu loolu amul rek des la tuddee arwaxe moo tax yëg-yëg bi li fekk antu jëf te fekk yow mi ko yëg yaa ngi ci amal noonu rek léegi yéen yëg du du compte bokk na ci yéenam gone di jëflante ak moom façon jëflante boo xam ne da lay bëgg waaye du la ragal Serigne Saliou daan digal gone yi ni leen gone yii da leen di yar ci Pastef te bañ leen a ci ak ndax ak noteel la muy yàq moo ëpp lu muy defar di leen wax ni leen gone gi gone gu gone gi koy jàppee ne sa rakk ji nga bokkal ndey ak baay yërëme ko noonu boo ko doxalee ak moom noonu dana la wekk jàppee la ni magam ji bokkal ndey ak baay te boobaa loo ko digal dina ko def nga ba ci ba ci yar dafa am yoni ni muy da ngay jëk a ki nga yar ba mu bëgg la ba nopi nga doog a li diggé diggé ka tay motax tax ci sansom non la dan doxé dan romb xalé yi nuyu len dan romb xalé yi di kaf ñam di daw di daw sax and ak xalé yi ak di leen dan daan ko seen ak ak hasan dan na sekk ñi di ko war ñi di ko war di dàq nan ari mu nan len ni amal jamalu jamalu kuma naan leen seen gileem gileem am ngeen gileem baax buñ nee weeg mag nag ba tey mag ay façon ay xeet la am na mag moo xam ne ay at la la ëppale magum at ci boppam da ko war a warmaal mag mi la mag ci ay at am na meneen mag moo xam ne xam-xam la la magee am na meneen mag moo xam ni eh, ab cër cër cër buñ ko dénk ci àdduna responsabilité cër la mag ku ci ne dañ ko war a warmaal ki la mag ci at dañ ko war a warmaal ki la mag ci xam-xam dañ ko war a warmaal ki la mag ci responsabilité noonu ñett yëpp nag sëriñ daf ko jàngale ki la mag mu wax ni bul toog ak moom ci kaw lal bu toogee ci kaw toogal ci suuf bu ngeen bokkee di lekk la ci ñam ba bàyyee ko loolu nag toujours dangay wax ne ni mu diglee la gën ci ñam ba bàyyee nit ñi moom seenu xir day àgg ci ñu dagg ñu koy dagg sax fa tegal ko waaye may wax ne mën nañoo bañ a àgg foofu mën nañoo bañ a àgg ci ci dagg gi di la ko di ko tegal ndax loolu mën naa am sax muy seen ñu bëri bëri ñoo xam ne tàmm waaye nag day bëgg nga ëffal ko ci li gën ci ñam naka noonu boo toogee moom day bañ nga sës ci moom rek nii di day bëgg nga daan ko tuuti loolu it noonu la ko digle ci ay teg naka noonu bu ñam bi ñëwee bul jëkk wax lu jëm ci ñam bi da koy déglu ba mu ba mu ba mu joxe ndigal ba lii mooy teggee ni yoonu Murid yi nga xamante ne moom la ñuy tuddee ak taalibe moom la bu jeexee ñu tuddee ko bul toog mukk tàllal say tànk mu jëm ci moom boo toogee da ngay bank say tànk am na mboo bay boo xam suñu bay daal dafa wax ni bankal sa tànk yi boo jekkee bis ak ku ba mel ni jaamam ba mbaa doomam ju ndaw loolu daa bokk ci teggee ni yoon ma ñu mu jëm ci ki la naka noonu lépp sab gis nga damm ko bul bul ko def jàkk ba tey loolu ba tey ci teg ñëw di bokk mooy da ngay xaw sax tuuti loolu lépp nag ab yar la boo xam ne boo xool enfant li ko fekk yar lépp lu soxla nga gaaw defal ko ko liggéeyal ko loolu la ñuy àndee mag mu la mag ci ay at mag magum xam-xam mi wala magum responsabilité bu ñu ko dénk dénkuñ la ko léegi yooyu ngay jël ba noppi ci boo nekkee fi moom bul bari am ko bul bari ab yëngutu na nga boole si bul boo booy rey it na nga muuni rek waaye bu bul bul ubbi sa bopp reenum la neex kooku bu la bécci nga lee na ko dékku na ko jëm a dékku te di ko suturaal te bul ko ne jàkk di ko xool te bul ko mere te na sax ci di faj aajoom loo man loolu yi noonu lañuy ñuy àndee ak boroom xam-xam bi ak nit ku baax bu dee boroom xam-xam bi ñu doole ci mun la dee ko siyaare ji moom nit ku moom nit ñu baax di leen siyaare ji di fab sa addiya di leen ko jox di sàkku seen ñaan di sàkku xam-xam ci ñoom foo léegi bokk na ci teggi nii teggin yi nit di àndee borom xam muy sàkku ci moom xam-xam loolu la wax ne ci teggin yi ñuy àndee borom xam bokk naka nga sa nga farlu ci xamlu gi ngay xamlu di farlu ci xam-xam yi nga fab sa ër bépp nga jox ko loolu ba bokk na ci teggin yi ñuy àndee xam-xam ko borom xam ba tey nga néewal say nelaw ci booy sàkku xam-xam bokk na ci teggin yi ñuy àndee xam-xam naka noonu ak gàttal say say ak guddi gi it nga fas ko yéene fekk foog di ñàkk nelaw guddi ak démarche ba teg di yendoo woo di flandé flandé foog rek ngir gëstu xam-xam ak booy jàng xam-xam ne nga toroxlu muy toog ci suuf bañ a toog ci kaw la te sa it jëpp nga bon nga dajale ko ci li ngay sàkk mu ñor la xam lu it nee na waree su ko néeg-néegal naan naaxaar ba det sànni jamono bu ne det sàkk xam-xam tey du weesu xam-xam du weesu dañuy wax ne eh, am na benn borom xam bu ñuy wax insul diin ibnu am islam dañoo wax ne ginnaaw bi mu amee cinquante ans ci la wéet ci sàkku xam-xam féete ci xam-xam ni xam-xamu diine képp moo ko ñor quatre-vingt-quatre ans la muy juróom-ñetti fukki at yi tamit te bi mu fi daan jógee dégg na sultaan la olama wooye nañ ko kilifa borom xam-xam muy tekki euh, amul aas bu ne war ngaa ko nan la ñor nan la sëriñ bi jàngalee ay teggin ci booy jàng alxuraan ay teggin ci booy sikkartur yàlla وعد من آداب ذكر الذاكر جلوس عبد في مكان طاهر مستقبل القبلة ذات ربع أو متوركا كمن صلى فعل طيب رائحة من لك بوكنا تجيني سكر سكر نبي خير بجانب القرآن جلوس ينتبه نعم لب دوغنا سكر سكر وأي من بوكنا تجيني سكر بانك سيطان بانك فرانك لاي جبل تنبو توتي بيربو لاب بنا بي خير يوخير بنيخ daal ni is la taxlu majalisu dikri ida ma tajlu min al malaikati eh, bistimaai wa muminal jinni xal ijmaai nee na jotaayu sikar saa bu jógee ay malaaka dinañ fa ñëw di déglu jullit ci jinne yi dinañ ñëw di ko déglu kon nga bàyyi leen xel tegginu noonu la sëriñ bi jàngalee teggin bi war a àndi ak way juram wax ni ñaari way jur na nga leen topp di topp seen i ndigal lépp luñ la tere nga bàyyi ko baat ba gën a suufe ci baat baat buy nuru lu leen di béccingal bu ko wax offen offen jooju mooy li gën a tuuti ci lu bañ ko wax ne mooy cippitu sax dañuy bañ cippitu ba bañ nit kii way juróom wax ba noppi mu cippitu mbaa sax te am na ci boo xam ne ñu àgg ci ni ba ci sax nga ñàngal sa kanam képp rek ba mu mel ne li ñu doon wax naqari na la képp rek dañ la koy tënk sa diggante say wayjur wala taqul lama uffin wala tanharhuma bët nag xel-xel ko waxul lahuma qawlan kariima booy wax ñoom na ngeen wax wax ju ju baax ju rafet waxfid lahuma janaaha dulli min ar-rahmati mooy na nga wàccee sa bopp ngir yërëm leen ba noppi di leen ñaanal nag yërmaande ni nga xamee ne daan nañu daan nañu sonn ci yow ba nga mën a def waxul rabbi irhamhuma kama rabbayaani saxiira naka noonu àndandoo yi àndal dafa am ay teggin yu ci yoonu mu jàngale muy la ci jëkk mooy wax tabiri rijaala xabla soxba bala ngaa bala ngaa ànd ak nit na nga ko nattu ba xam ban xeet nit la mu ne walaatu saahib xumran aw zaran bul ànd ak ku dof bul ànd ak ku bari lu muy xeme daal ne bul gis nit it mu sol col gu ñaaw ba nga xeeb ko waaye bul gis nit it mu sol col gu rafet ba nga jàpp ni kii mooy nitu yàlla ki gën a rëy ci mu ne warul baax abdin xat ala inda al uyun ka annahu qutbu raha xaysu yabin وصيته انتشر في البلدان وهو كالخد للرحمن يعني برني كار بني من بني تلبيني أو كي خبز ولا وأنا مقبلني أفعل <laughs> ورب ذيت خد جن خدم تلا نورا وسرا من إله خلا برني كو كنيان بري كغسل أبتر أكيدن تفكين دافر دل أكو أكو لعب دين تبو برام لدب كون تي تجيني عن ربك مي ورنا تانا أنا لو بل أنا كنت بل أنا كو إنيان يعني بل أنا كنت خيمتك ànd ku dul ku lay dolli diine mbaa am xel koo xam da nga dolli ko ci moom diine mbaa ngay dolli ko ci moom xelam adduna baax na waaye budul kooku na bokk na ci teg yi àndoo bu leen nax fexeel ba lu mu wax la ci wér ba bu leen jox rendez-vous mukk yi di ko naka noonu nga yaatal say jikko jamono bu ne ci nooyal say wax lépp loo xamante ne dana yokk ak cofeel si diggante ñoom rek nga di ko def loolu ay teggin di ki ak i ànd naka noonu bépp aajo bu nga jàppale leen ci di leen liggéeyal di leen boo jumee nga jéggalu leen leen maa ngi jéggalu ñoom ki ngay àndal lu mu sàkku ci yow ngay nga xool mu yeyoo ko na nga ko ndax fi mu doom am na lu muy ñëw sàkku ci yow da xam ne yeyoo na ko sa soxna amoon lu muy ñëw sàkku ci yow da xam ne yeyoo na ko sa àndandoo am na lu ci yow da ngay xam ne yeyoo na ko ku yendoo ko sàkku noonu la sëriñ bi jàngalee teg gi ñi war a dox diggante nit ki ak gan gan bu jaar mooy nañ ko yaatal première fois nañ ko bari lal ay bernde ubbi sa kanam si diggante noonu la jàngalee ay teg gi diggante tegi ni ñu àndeek cheikhul taalim ak cheikhul murabbi cheikhul murabbi bi mooy nga wet ko di sàkk ngërëmam foo toll ci di ko jox loo man ak di ko liggéeyal boo àndeek moom nga bañ a mel ci wor ak lépp lu diir nga def ko lu mu teree nga gaaw nga gaaw moytu ko bokk ni ko jëkk moytu ak lépp lu aju ci moom moom sëriñ boobu yi lu aju ci moom moo xam soxnaam la mbaa doomam la mbaa ab taalibam la mbaa ab xaritam la lu ma doon rek na ko war ma loo man ci addiya nag nga jox ko ak lu mu néew yow baax na teggin yi ci des nag day teggin yoo xam dafa généralisé nit ki ay teggin yi muy àndee jëmmi boppam sa jëmmi bopp rek am na war ma jox xamante ne da nga ko war a jox ak teggin yi sëñ bi joxee nga war caa dox si diggante sa bopp la ci jëkk mooy bul fekk mbooloo mu nelaw ngeen nelaw seen biir wa in xadabta laa takun za nawmi bayna zawi yaqadatan fil xaw boo ko mënee bul fekk mbooloo mu nelawut ngeen nelaw seen biir li ko laysa min al aadaabi iz fiihi maa fiihi min al xitaan daf ko lëb bokk ci ay tegin ndax lu ne ci naka noonu boo toogee ci jotaay bay jóg bañ jóg xëpp nit ñi suuf si waaye da ngay jóg ndànk barandu loolu ñi mu ci ci ci ci naaju bi noonu la ko daan noonu la ci daan yaree nit ñi pour ñu jëf ko sëñ sëriñ Saliou dafa maa nekk leen dafa am mag ku toog ci sëriñ bi bu jóg xëpp nit ñi suuf si sëñ bi ko kaay mu ñëw mu ne ko boo toogatee ci aw nit bay jóg da ngay góof sa yére ba ba sori waaye doo jóg rek xëpp nit ñi suuf si mu ne ko tuub naa ko bàyyi waaye fekk sëñ am mag mu dem woo ma jiitu di daw góor ga topp ja mu ñëwee ba agsi di xeexal ba xawute mën a ko buñ la wooloo te mag koy jiital mu dox bàyyi ko mu dox ni mu ci naam hmm. waaye doo jiit di daw mu topp lay sëkk-sëkk ba xamut li ñuy mu ne ko tuub naa ko bàyyi sëñ bi ne ko tuub de baax na waaye tuub tuube nag amul solo tuub baax na waaye foo toll def liñ tuub naka noonu kon bokk na ci teggin yi mu koo wuuteel gis-gis mu wax nga gisee nii moom mu waxee ne mun la bul wax nit mukk ni ko fenn bul wax nit mukk ni ko jomb bul wax nit mukk ni ko waxoo dëgg boo waxee xam nekk xuma ko mbaa nga ne ko damaa jàppoon nii te gën nii laa ko na teggee ni yëglu bala ngaa dugg ci nit nga yëglu muy ay teggin yu am solo yoo xam te ne dana defar ay relation ndax liñ naan ganub daf mooy jekk-jekk bañaax buy ñëw du yëglu buy dem loolu la sëriñ bi di bañal ab taalibe ba tey moom la sëriñ ba jaata wax ni murit du xoole du murit du waaxu ni jot lay fekk ab sëriñam ci ab as mbirab su ko kenn wowul waaw loolu nee na ba moo tax sëriñ bi diisoo daf koo jàngale comme ni suñu borom digle ni laa tadxulu buyuutan gayra buyuutikum hattaa tasta'nisuu wa tusallimuu alaa ahlihaa bu ko defee nag diisoo bi ñu taamu nag nga xam ne moom rek euh, diine digle mooy nit ki ne asalaamaaleykum ndax mën na maa mën ndax mën na maa dugg waaye bu ko waxee ñetti yoon bu ñu ko tontuwul sax lay yoon mooy mu dëpp waaye bëgguñ ko jege rek boo dee asalaamaaleykum ak bañaax ci kii nuyoo yi dañuy bëgg buy nuyoo mu bañ a taxaw ci digg bunt bi waaye na taxaw ci peggu ndigal bi mbaa ci peggu càmmoñ bi foofu it lañuy bëgg di gisoo mu taxaw fi loolu mooy hadis bi Abu Daawud nekk li ñu yonte change la def mosaan ñëw ci ab du taxaw ci jàkkaarloo bunt bi waaye day toog ci taxaw ci peggu ndijoor bi bi wax asalaamaaleykum bokk na ci ay teggin yëpp ba tey buñ la ne boo nuyee ne la kooku nga ne mën a diw te bañ a yem rek ci mën a bañ a yem rek a ndax jaabi leen nga nekk li dama ñëw ci yonte change bor bu ma doon lijjanti ci moom bi ma ne kooku man ne ko mën a mu ne yéen tamit mën a mën a rek mu mel ni dafa bañ baatu mën a mën a jooju fokk day wax ni a diw diisoo yi ñetti yoon ña waxal na aleykum ñetti yoon te taxaw ba dégg nekk la bisimilah comme noonu bu yàlla dogalee ñu wuyu la baax bu ñu wuyu nga def mu mel ni ci dugalaale ba tey kon teggee ni boo wootee foog nga ne mën a diw bañ a wax rek mën a mën tey wax asalaamaaleykum moo moo gën a doon ay teggin ci ab jullit bi tey ñi nga xam nag dañoo dëkk ak yow doon sa soxna bopp ak sa njabootu bopp ñooñu moom suñu borom dina fixé ñetti waxtu yoo xam ne bala ñoo dugg si war nañoo yëglu waaye bu dul ñetti waxtu yi rek mën nañu mën nañuy bàggante dugg ak génn قالوا معي ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات مئة يوم من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء مئة وقت يوم لو جحصوا جحصوا أبنت بلغة سيتي بلغة دكو نيغم نيغم نيغم نيغم نيغم نيغم نيغم نيغم نيغم نيغم sëriñ bi wax ne bokk na ci teggin koo ñëw ci moom nga nuyu ko bokk na ci teggin delloo ab nuyoo ci ku la nuyu bokk na ci ay teggin saaf mu saafaraante ci bu baax te bañ a ko ak doole. naka noonu bala ngeen tàggoo kenn ku ne ñaanal sa morom aw loolu ba tey bokk na ci teggin yi sëriñ bi di jàngale. bokk na ci teggi ne boo duggee ci néegu jàmbur nga bañ a boyal sax gis rek fa la neex nga xool fa waaye ngay lamsal ngir dañuy bañ kuy xool awray jàmbur di duggootal koo gis naka bokkul ci ay teggin nit ki lu mu nëbb ci ab néegam mbaa mu def ko ci poosam mbaa mu laq laq ko ci euh, ron ron ab ab nii mbaa mu ngëpp ko ci loxoom sax doo ay teggin nga def nekkal ci pour xam li ñu denc dund kon loolu yi mooy teggin yi nga xam ne bi may wax ci njëlbeen bi damaa wax ne lépp lu ñu war a jéggi feneen am na fi tey yàlla ni mu seddalee cër yi ba ajewul kenn di àpp nopp noppub jàmbur mbaa tànkub jàmbur mbaa loxob jàmbur ab di kilifa mbaa ngay ab jéggaani ak kilifa mën naa ñàkk ba tey maanaam lépp lu mu doon rek yàlla jox na lu kilifa kilifa nga leeral na ma lépp lu war a mën a feneen kon loolu yi mooy li ma tënkoon ci teggin yi nga xamante ne sëriñ bi jàngale na ko ci teggin yi nit ki war a ànd ak teg yi ñu ko war a àndee ak moromam te buñ ci doxee yow adduna ak alaaxira mu ngi ci biir tey teggin yooyu ci nii mu ko jàngalee wala bal na fépp fa ne mën na dox moo tax ñu di ko fàttaliku lu ci am solo la. li ma wax ak ak ñenn ak fàttalee lay doon xëy na du ci ñàkk nit def mën a fàtte bu ko defee ñu di ko fàttaliku di ko bàyyi xel fi ñu toll di ñaan yàlla mu defal mu. ndimbal ak tawféex defal ñu ak dégg ak topp euh, suñuy jëf te ndax def na ko fa yàlla yëpp jërë nekkee ñu la mag ñu la ëpp xam-xam ak yooyu daal parce que man yàlla dafa def mënumaa toog xam ni fokk suma toogee moom damay tàgg mënuma ko banque daal comme ni léegi xanaa kon suma toogee man damay dem ca ginnaaw wala nu may nu may def. Hmm? jërëjëf euh, ndigal ndigal li lañ koy digal. Ah. waaw saa ci mbir ba ci gi di ko suñu borom di digle dafa wax ku ci tawat nga xam ne yaatal mënoo war bàyyee bàyyee nañ bis boo nekkee ci tukki ni ni ma faral di amee ay jafe-jafe bàyyi ko ba yeneen bis ginnaaw nag farata jooju ci la waxee ngant loolu ni ki ko am nangam kon ngëneel la taxul des wax waaw dañ doon jàngale ay ngëneel la tegu nii loolu leer na suñu kay mi amoon daf laaj asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu baax a baax di ziaraat kilifa yépp di leen baal wax tam di leen baal wax ci eh, weer wi nu dugg ñaan sunu borom mu may nu fekk koy at yu bare bare lépp lu ci rëcc su suñu diggante jëmm ji ak yéen ñu ngi leen koy jégal bu baax a baax a baax kon sëriñ bi nooy ziaraat baax a baax xëy na xawma li may wax ab laaj lay doon <coughs> wala ab taddaxul ci waxtaan wi nga xam ne doon nañ ko wax <coughs> jégalu sëñ maamoon dañu ma wàllu yaram xale yooyu ak laay biir gi nga xamante ni sëriñ bi daan na ko laay biir képp ku mu nekkal kon xawma nun ni nekk fii ak euh, sunuy tuut tànk ak dëkk bi ni mu bindoo ak ni jataayoo bi jafee ak ñoom kon ñooñu lan lan lañ leen di dimbalee wala kan moo leen di dimbali ma dolli ci ni li nga wax léegi misaal mi nga joxe ni sëriñ bi tuut tànk bi bi mu ko yónnee bi mu jógee xëpp nit ñi suuf da ko woow mu ñëw mu laaya ko biir mu demaat def li mu def ci xaw a euh, waaxuloo mag mi waaxu mu yànji mu ñëw mu laayawaat ko biir euh, xëy na loolu euh, xaw nay mel ni xëy na dana manqué kon ci dëkk yi mel nii ak ni nga xamante ni nee na dëkk bi bindoo ak jamono ji te loolu tamit xëy na da koo doonne woon ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ndax xisab ka mu doon xew lool tout tànk doon xew lool wax ko yamal ci sa kanam ak del lekk del wax bismillahi rahmaani rahim di lekk sa ndeyjoor te yem ci sa kanam loolu ñëpp dégg nañ ko kon xanaa loolu ñu ci doole ci euh, xale yi nekk ci dëkk bi ak noonu ci war a gën a tax xëy na loolu bu dee ab laaj kon loolu mooy laaj bi kon xëy na incha allah jërë ngeen jëf jërëjëf euh, di moo tax wane wane lu ci ëpp ñaar loo ko bëgg a wan jërul sax wax ji bari waaye de de ko jëf muy gis rek loo ko bëgg wan rek de ko jëf de ko jëf muy gis ndax euh, fii bu dee Canada ak yaa ma demoon de gis naa fa xale yoo xam ne euh, seen bàyyi doxin moom doxin ñoom daal lu am solo la ci dama ko rafetlu loolu ngir euh, dañoo dem ba lii di leen di neex taalibe gi ñuy dund day neex xale bi nga xam ne moo koy gënal leneen jamono ba nekkoon léegi xale bi yaa koy xëcc ci sujeen bopp ni di ko bëggloo melokaan yi ci sa kaw ci sa jikkoy bopp nag jikko ji rafet ci ko yi moom la ko ba nga xam ne moo koy gën a la tubaab yoon ndax tubaab bi bàyyi ko mu libre léegi yow itam da nga koy da nga koy bañ a bunu xataar andil ko ak liberté ci sa biir li ngay dund dana mujj léegi moom daf koy bëggal boppam léegi loolu moom moom lu am solo la ci luñ waral di

gone di laa daan gën a di jël gën a gën a jël gone bu tuuti ndax mag mu dem ba toll ci martaba ba tarxiya day néew mën a jaxasoo gone yi nga xam dañuy toll ci martaba ba tarbiya nga xam ne dañuy def ñàkk a sañ leen koy moo leen tax def waaye solo waaye mu mel ni kon euh, a jël gone yi jëflante ak ñoom façon jëflanteen boo xamante ne dana tax ñu ëpp xeymamtef ci lii ci lee leen tubaab yi woo loolu moom di ci dox suñ kéem kàttan baax na ci loolu nag di ci dimbalante di ci jàppalante te it nag Eh, nit ñi suñu borom dafa séddale dafa séddale cër yow mën naa am fi mu toll nii nangam mënoo ko waaye am na ku ko mën ba tey di gëstu ba ci kenn ku ne nu mu yare doomam sax ñu ne ko gëstante ci suñu boobu boo ci gisee qualité nga jël boobu sax jëlul bañ te bañ a gëm rek jël benn bi nga xamoon rek ndax fee dégg naa fi koo xamante ni euh, daa ngaa doom ji far far mu faatu. bañ bañ ñëpp ko tëdd naa ko jël ko loolu lépp ndax. am na ay jamono sëñ Saliou mu ñëw ci daara ja euh, di ma wax ni ma wax jàngalekat yi na ngeen wax ne lu ñu lu ñu gën a mën a néewal dóor yi moo ci gën ndax di dóor daf xewi la ko waxee na ay jamono yi ñu ñëw ci daara ji ba dem yabal ay ndaw ñu ñëw bañ ñëwee dañ doon wër daal yëpp di leeral bañ ñëwee euh, tubaaxa bu leen ni ma sëñ bi nee na bi moom fi mujjee gone yi biñ ko waree xet gi doon génn ci ñoom loolu jamono weesu na ko mm-hmm. nañ fexe ba gone yi di sangu di sol lu set buñ ko amut nañ ko ko wax moom mu yónnee mu yónnee li ñuy li ñuy sangoo ak li ñuy setee waaye bàyyi ko ne ñuy tëdd dara bët na nag kii la yoo xamante ni jàmbale la ñu di ko jàng te kenn ku ne di xool façon yeneen ba sa morom deer bu la gën lee nga jël ko loolu ndax am njàng nii jërul sori fi mu toll nii yow xarit bi nga jaxasoo xoolal ci moom ay qualité béréb bii boo fi ñëwee boo fi jëkk ñëw tey tey tey rek mën ngaa xool ay qualité mën nga fi jëlee ay qualité rek yóbbaale ko moo tax daanaka ñu ci góorgóorlu ci wet kooku lu koor gi ndax ñun sañ nañoo ànd ak waa Touba wala waa dëkk bi lañuy lañ si yàlla loolu moom sama problème la moom. kon li ma doon laaj ko ci kaw nee na ndax koor gi xanaa ñu jox imaam mu tontu. waaw bala ñuy wax dara ñu ñuy bokk taalib ci sëriñ bi nga xam ne moo ñëw tey di ñu baaxee waxtaan waam solo yi nga xam ne kenn ku ne jaroon na ci ñun mu la xas dem di ko jàngee. ndax. li mu wax boo ko seetantalee dëgg-dëgg maanaam balay jëriñ kenn yow mi koy def lay gën a jëriñ ndax àdduna ku ami jafe-jafe daanaka boo seetloo la la ci ëpp yaa ko sa bopp ndax yaa am jikko yu woo xam ne dafa dëppoote jikko yu baax wala nga bëgg loo mënta am yooyu rek daanaka mooy indi nit mu metti àdduna waaye àdduna moom euh, ku yam ci njàngale mi sëñ bi wax sa àdduna dana teey dana yomb ci yow ndax mooy yaru ami teggin bëgg lu baax boo ko defee di ko wut doo tiit doo jàq doo gërëm kon noo sant bu baax sëriñ Bassirou mi nga xam ne moo ñu def lu waxtaan am solo yi euh, euh, xam naa laaj yi yooyu moom sëñ bi koy laaj moom itam boroom xam-xam la xam naa mën ngaa tontu sa ndax da ngay waxtaan daanaka moom yaakaar naa loolu. Euh, Eh, yéen mag ñi yàgg ci àll bi yàgg a dégg yaakaar naa sëñ Mourtala tontoon na ci. tontoon na ci ndax Xaadim Lo ci boppam nee na jottali ne sëriñ bi ca Espagne mu ne ko digal naa taalibe fu ñu mën a nekk la ëpp ci julli ji lañu ñu tënku nañ ci tënku ci wàllu koor kore Tabaski loolu ci euh, misaal bu gàtt rek naan sëñ Mourtala moo mujj ci moo yoroon mbirum taalibe yi ci mujjoon ci àll bi loolu mu waxoon. man jàpp na ne man si cee jàpp te it man ci loolu la jàpp ba tax na man fu ma mën a nekk eh, la ëpp ci jullit yi nga xam ne dañoo bëgg lislaam ba tabax ay jàkka di jullee ko woor ba fekk woon seen jàkka julli fa eh, dugg fa julli eh, bu ñu nga war a mën a ànd ak ñoom woor bu ñu wooree war a ànd ak ñoom woor bu fekkee ci dëkk nga dëkk bu ne dëkkoo fi nag mbirum gan la gan nag xam nga moom ak mbiram bokk dëkku dëkk waaye ñun ñi dëkk ci dëkk bi daal noonu loolu yaakaar mooy suñu digal. asalaamaaleykum. jërëjëf sëñ loolu leer na pour dellusiwaat maanaam ci wàllu yar gi nga doon wax sëñ bi sànq maanaam dafa am ci dëkk bi ñi fi nekk bu fekkee nekk maanaam li nga jàngale muy ci sëñ Tuubaa wax ko muy mu leer lu leer nañ ñu wax dëgg yàlla waaye maanaam mbir mi mooy xale yi fi nekk yow boo xëyee daanaka tubaab bi nga koy dénk. bu dee liir yóbbu nga ko ci crèche bu tàmbaleeg am ñetti at tubaab bi maanaam moom lay yendool kon koo xam ne daanaka tubaab bi lay yendool ba ngoon yow boo wàccee daanaka li nga ci am mooy sang waxtaan ak moom tuuti jox ko mu lekk tëdd kooku maanaam ngir def ko jullit ak murit ah xanaa warta yomb de waaw

ndax comme que yar ki moom par par l'exemple lay doon faw mu gis li ngay def te moom tubaab bi la doon ngoon gu jot mu koy wax ndax maanaam liñ ciy jot danañ mën a raxas loolu ba def dara maanaam leneen ci moom daal duñ ci waayam ci ci wàllu pexe. jërëjëf euh, sëñ bi loolu de li ma bañ a xeeb lii jataay yii dañ koo xeeb waaw jataay yii ñuy ko suñu moom buñ ci xeeb dara. waaw lu ñu mën a am ci jotaay yu mel rek léegi mën a ko nag di leen di leen ci di leen ci boole. waaw loolu bu ko defee nag ab tàmbali la yàlla mën naa def léegi ku ci doxee noonu te góorgóorlu ci ndimbalu yàlla mën daje fekk waaye li nga wax jafe-jafe moom xas lu am la moom. Hmm. lu am la te ñu ñi ngeen ko seqal di leen gën a ñor mooy rek dara xale ko hmm. waaw ñoom leen gën a ñor mooy gën a yooyu hmm. waaye mag moom dañ naan nañu ko bàyyi mu jàll waaye xale bu ñu ko def xale bi responsabilité la boo xamante ne Eh, yow mi nga xamante ni yow la jaare ci yow am na lu la ci yàlla gàll. Hmm. la ci yàlla gàll mooy léegi sa kéem kàttan war nga koo xamal diineem di ko ci toqe. loo man boo defee li nga mën lépp nag la ca suma muy jox leer hmm. waaye bañ cee xeb li ñuy ñuy def ko si ne daal ëpp na cee na hmm. waaw ndax fi nii. daje gi ñuy daje fii di waxtaan mbirum diine di delluwaat ci mbirum Sëriñ Tuubaa di ko nangam nangam bu amutoon am na ñoo xamante ne bu tollee dañuy sànq fi mu toll. dañuy sànq ndax bu danañ gis leneen ñu jàpp loolu ñu wujj moo tax lii ëpp na ci di ko jëmale gën a gën a jëmale kanam fu mu toll ci lu ko lu bu yàgg bi yàgg li ma daan ci am incha ma ngi jégalu sax ci dolli bi ci ay ay kàddu waaye ni ko sëriñ bi waxee. googu ci lay ci lay dellu si maanaam xale yi bu boo seetloo comme ni tey nii rek ñu ngi wax boobu léegi waaye ñoom ñu ngi wundeelu maanaam kon dafa mel ni boole gi nga wax des na euh, damaa jàppoon ne xëy na boole gi doon na gën a gën a wér ba bu ñu amee lu mel ni jotaay yu mel nii kenn ku ne oof sa doom bu ñëwee bu dee andi nga ko mu jàng ba noppi nga oof ko mu toog ci sa wet euh, di déglu li ñuy wax donte xamu ci dara bu ko defee tam yenn saa yi buñ toogee ñoom xëy na comme ci dëkku mel ni làkk français la làkk bu bu ñu waxee wolof ba noppi kenn jël tënkal leen ci français wala lu mu gàtt gàtt rek jër ta xeeb comme ni ko sëñ bi waxee yaakaar naa loolu moom bu ñu ko doon gën a gën a kii bu baax dana dana ci solo li may wax xëy na du waaye maanaam lu ma fekkee la lu ma lu ma dund muy Marseille euh, xale ya fa nekk tey jii bu ñu dem fenn fukki at ak juróom ñaar fukk ñaar fukk ak nangam ñooy fees bis bi ñoom ñooy njëkk a inscrire te xëy na njàngale mi nañ ko tërale woon rek mooy dinañ wax ak ñoom wolof waaye dinañ dugg ak ñoom ci français tam ak impliqué leen maanaam boole leen ci liggéey bi ba nga xam ni euh, na yi sax ñi nga xam ne amoon nañ ñaar fukk ak ñaar fukk ak nangam juddoo fii demoon nañ ba amoon ay xaale nii nañ jël togg ki ci mag ñi maanaam seen yaay yi togg dañoo demoon ba am xaale ni léegi bu màggal amatee ñoom ñooy togg te te juddoo fii góor ñi tamit di jàmbaar demoon ba kuréel sëñ Murtala sëñ Mamor ñëw na ñu kuréelal ko ba tàyyi te loolu da leen di gën a soññi daal di gën a wane ni bokk nañ ci waaye fii dafay xaw a manqué ñu wax cee gën a góorgóorlu bu baax ci wet ko kuréelu xale digg gu taxaw bu manqué na fi te loolu da di boole ci liggéey bi di leen impliqué tam di leen yenn saa yu tënkal leen ci nasaraan bokk baax na ci bu di leen uuf tamit ñu toog bañ leen a rek ñuy wëndeelu dana ci baax lool maa ngi ciy jéggalu salaamaaleykum wa rahmatulah ma ni ma ciy fàtte woon tamit tamit lu am solo xëy na maanaam mooy cadre carte bi dama japp ni seigne Murtala bi ñuy jënd loy kër manam limu ci djublu won moy ñu jangal xalé yar leen ndax ñun mag ñi juddoo senegal màggee fa yaroo fa amna lu ñu xam ci talibé gi waaye kër yi xalé yi dañ ko warona gëna jox waye ñun dañ ko gëna def suñu programme bàyyi programme xalé yi lo tam war nañ cee gën xalaat bu baax muy fi muy tabal ni muy marché gi ñu bëgg jënd fexe tam ba am institut euh, bo xani institut Mouride lay doon fi en France nga xamanteni dinañ fi mëna jàngalé xalé yi bu vacances ñëwé li seigne mamoul wax bu leen tubaab bi téye xëy na ba vacance jot ñu man mën leen yóbbu foofa waaye li fekk amuñu ko dinañ am ay coono yoo xamante ni du yomb saafara kon loolu tam ñuy xalaat di dox di ci jëm ta ci taxaw xëy na mooy fédération nationale bi ñu gën koo dooleel gën a xalaat jëmale ci bu ko xëy na yooyu yëpp dinañ mën a dem ba bis école juif yi mu wax dañoo am seen école euh, ay ñu di ko état bi dem ba di ko financé arab yi jàkka joo dem lu mu tuut tuut am na école euh, kon loolu yëpp tam ñun ñu war a dox xalaat jëm ci yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu man de dama doon laajte rek ci baatu ndigal nga xam ne moo tënk yoonu murit murit moom daanaka ndigal bu teggee ko rek doonatul murit te yaakaar naa ne ñun ngërëm lu ñuy sàkku muy ngërëmal yàlla ñu mën ko amee ci ñu mën ko tuddee ngërëmal sëriñ Touba te nga xam ne ci ndigal lañ koy amee baatu ndigal boobu laa doon laajte nan lañ koy dunde jërëjëf euh, am na benn daayira bu jóge woon Gambi ñëw ci suñu waaye bañ ko ne dangaa digle woon naagam dañ leen salal diglewu ma dara de jot li ndigal yàlla day laa leen def waaye digal diglewu ma dara saa si di deman si baatu ni diglewu ma moom ndigal yàlla nga xam ne kon noonu bu suñu la daan gàttale hmm. topp ndigal yàlla yi bàyyi tere loolu mooy baatum ndigal bi nga xamante ne suñu tubaab digal na ko ñëpp mënut hmm. bu ne da cee desaan nag mooy bu ndigal lu yeesaat nag lu mel ni ñu war a tabax jumaa ji ñun leen ñii tabax jumaa ji indi leen nangam hmm. loolu mooy ndigal yi yeesaat waaye ndigal yi nga xamante ne moo moo fonde tere rek mooy ndigal yàlla yi ni ko suñu la waxee daal def ci kàddu yi gàtt salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu sëriñ bi ñoo la lay ziar di feddali sunu bëgg bu nu bëgg sëriñ Tuubaa ci taxawaay bi ci taxaw ñu di la ko feddali ak sopp gu ñu la sopp lool ngir yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa di la ñaanal suñu borom di ngay liggéey ci lislaam te di ko liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla na ci yàlla gën a taxaw te yàlla na ko bokk barke borom Tuubaa noonu sunu laaj ñu koy jëme ci da ngay ñëw ci dëkk bi yàlla dogal jigéen li ci ëpp bu ñu ñëwee dañu lay tàllal loxo léeg-léeg suñ la ko defee nga gàntu soo melee ni ko gàntu maanaam ña ngay toogal sax ci ñoom du leen gënal ndax dañuy wax ne da leen ñàkk ay teggin euh, bañ mer nag moom doomu aadama ba dajeek meram suñu borom lañuy laaj loolu nu mu deme beneen bi it mooy maanaam ñi nga xam ne dañuy jóg di xas lislaam dañu koy mel mel yu ne ku lu tëb jullit te xamut loolu it su la joxee loxo boo ko joxut loxo euh, mu daldi lay ragal boobu ëllëgee mën naa am gàllankoor ci moom ci bu nit bëggee wax ak moom ne ko lislaam maanaam dafa nangamut lu yooyu yaar ñu ci di def ba mën a maslaha ak kee ba bu waxee moom mën ko dugal ci lislaam ak nooy mën a fexe itam ba teer maanaam suñu borom li mu la tere ba kenn du la ko tax a def wasalaamaaleykum jërëjëf waaw euh, loolu de ñoo xam ñu bari ñu koy dund ci réew yi ñu nekk ndax nit ki moom bi mu xasee ba tëddee nekk am réewam ba dugg ci meneen réew rek jafe-jafe tàmm naa bu fekkee ñooñu di dund dara saxal ko imposé ko ngir mucc ci dina jafe lool waaye nag teewul gëm-gëm dafa foor diine it dafa foor te sëriñ bi li mu wax mooy xultu man talaba ridwan la wara bi suxtiral bi fa xum doon zukara moom dafa wax ne sàkku ngërëmul nit ci luy naqar yàlla moom ab dafa koy ab dafa koy def moo tax boo defee nag léegi da ngay fexee nag ba téye sa diine ba noppi mer ma nga mañ war a mer ci nangam nga nga di ko moytu loolu moom ay masaale duñ yoo xam waaye da ngay fexe bu ñuy mer dina jëm na leer bu noppi na ko làq ba noppi da koy denc ba noppi ba noppi nag di seet nañ bañ a mer boo làqee sa diine ba mu leer dal ngay doog a tàmbalee di seet nag ñuy ñàkk waaye fexeel ba mer bi moom moom bu mu bu mu kontaan rek dinañ waaw loolu loolu nag moom nit ku ne ak système ba mu ciy doxee góorgóorlu ko ciy doxee loolu war naa maa nekk war naa maa nekk nga laq si diine ba mu daa mel nag ñaari la boole de. waaw ñaari la boole ñaari la boole tey suñ Kara Samb. maa ngi jégalu bu baax ginnaaw bi ñu ziare kilifa yi bu baax a baax ak mbokk taalibe yi yëpp di leen ndokkeel ci weeru koor wi te ñaan suñu borom def ñu àggale ko ci jàmm ak salaam te li ci yàlla dele lépp ci ay barke. ak i xéewal ak ci gore ci sawara ak njéggalam lépp ñu am ko. sama plaque moom day génn tam bi tuuti waaye dañ ma koy jéggal rek ndax suñ bay jaxate day wax ni waxtaane yàllaa ki gaayam cër bu nit masa am xam na xamal ni kat ca la juddoo yow murit bi xamal te ku ne xam na ni sëriñ Sonia bu ci juróomi fan ci weeru koor wi la la màggalam te xel ko moom dama koy faral di dégg ci ay waxam mu ni nekkoon naag moom wala boobu jaar na ca moom wala lum mu ci mën a demee rek te ñu bëggoon nag jariñu wala boobu dégg dara ci dundu Serigne Souhaïbou bu lu mu gàtt gàtt rek loo nga xamante ni danañ ko mën a yóbbuloo danañ ci mën a roy man koo dégg mu doon bind ci ñun loolu rek moo doon laaj bi ñu ngi jégalu bu baax. laaj bi nga laaj sax. dafa sesoo loolu ak lii sëñ Mbane bi doon laaj ndax maanaam sëñ Sonia boobu yërmande dong la ci waaye nag noonu la tare nag ci wàllu diine bu ngeen duggee ci wàllu diine da a tax ci àdduna te bu jàllee yërmande xuma daan bind jigéen ñi bataaxal maa ngi koy wax léegi rek benn bataaxal la bind ci loxoom nii yónnee ko njaboot jigéen ñi boppam ñi ngir kaddu seen kaddu bu yëkkati ko mu dégg. loolu daf koy da koy naqari day bëgg jigéen di suufeel kàddu mu bind leen bataaxel ni leen dama bëgg ngeen xam ne jege nit ci ak mbokk mënu la weesu diw ma jur wala maa jur diw wala diw may denc te yonente yi gën ci yonente am na ci koo xam ne doomam dem na sawar am na ci koo xam ne bàyyam dem na sawar am na ci koo xam ne soxnaam dem na sawar te dara tegu leen ko lu weesu ñàkk a topp ndigal ak ñàkk bàyyi ak tere su ma leen dee wax ngeen ne àjjana moomu ko moom moomu ma su ma ko moomoon kenn ci yéen du ca dugg waaye ka ko moom la mu wax ne ku ko def mu tàpp mu dugal la ci loolu laa xam yéen leen ko di leen ko digal sawaram moomu ma ko su ma ko moomoon kenn ci yéen du ca dugg dama koy fay sax waaye yàlla ma ko moom la mu wax ne ku ko def mu tàbbal la ci loolu laa xam di ko moytu di loolu ku def sa bopp ku def yaa càkk lii Serigne Saay moo ko bindal muy bataaxel bu mu bind bare jigéen ñi ñu toog jàngal leen bu ñu la nag ci yërmande ak fonk kóllëre ak kuleer waaye nag bu dina ñëwee ne nii la tarif doon xanaa sëñ bi waaw xaaral ñu àggale foofu rek ci sëñ suy wax nag ci wàllu tarbiya sëñ bi foofu it euh, ah, maanaam ci wàllu tarbiya si sëñ bi maanaam nu mu fi doon dox ak taalibe yi ña fa nekkoon di jàng ak yooyu ndax doon na leen digal ci saa si waaw moom dafa bindoon ab téere boo xam ne xorat na ay ndëtt la jamono yam koy bind yàgg na booba damay doog a ñëw ci daara ci ay 1969 70 69 70 jamono yooyu dañ dañ daan indi jëmmi téere boobu ci daara ci ku ci jàng ñaari isib alxuraan ñu arrêté suñu nga tàmbulee ci bopp la ilaha illallahu yàlla suñu borom bi moom dañu koy bindal ci ëllëgoo nga koy mokkal di tare moom rek moo di buur ngóor mi digal ko kenn lu ko neex mu am lu ko neex xam-xamu boppam sañ-sañu boppam kàttan lañ koy toppee ba jàng wa julli juróom mu wax ni mu gën a fare ci li yàlla li yàlla yónni yonent léegi nag nooy jullee xam nga gone bu tollee foofu noonu lañ nooy jullee boo jàpp ci say woom li wax boo sujjootee li ngay wax booy taayee li ngay wax. jàngal la yarub jàkk yarub jàkk maa ngi ciy fàttaliku loo xam ne jamono boobu laa ko hmm. ñu bindoon na ko ku nekk ci jàkka du xoolee xoole bu bari day lam sax rek ku nekk ci jàkka du tàll ay tànkam du foq ay baaraamam du leewi ko du wokkutu du teeñu du ray aw teeñ du ko seet du fo du ree du rëddantu du tombantu du capp-cappali bant day tudd yàlla ndànk wala mu yar ni cell li daan yar ni ñaareel ba li li li daan a mën a feeñal aw tàngooram moom sëñ bi mooy waxtu julli jot mu seen ngay def dara lu du julli si mm-hmm. nii mu waxee ci ci téere bi ni julli war na ñëpp mu kàlla tolle koko mbaye to tawi ko to tali ko sayi sayi bo won tamo fisere ci dara tabu ko to bete sawle dem no ni mo wax kere non dan wax ak dongi ñum yak sen bir maslama tedd ak mom ba guddi ma ci boy dem ci wana mi ma koku mo ne ko man mo fojje mo ko ci wana mo ni ma naga jël lamp bi te naga dem ba tim pax ma te bo noppé naga sew te japp ko so ci leeram nañ ta baax ko ci ñablay ñew jox la nga laaj ñu del ci asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa maa ngi nuyu mbooloo mépp gannaaw mu nuyu sëriñ ba noppi di la siyaar bu baax di siyaar mbooloo bi ci weeru tedd bi nga xam ne moom dañuy dugg ko yàlla nangul teful ko ngeen jëful nangu ko ngeen ji nangu barke Seydina Muhammad alayhi salaatu euh, de xaw na maa yéex a ñëw waaye lii may laaj. lii may laaj dafay laaj boo xam ne daf maa ñor ndax li tax mu ñor moom moo di nga xam ne dañoo nekk fii tey dox léeg-léeg ci diine ñu ne koy jiiñ doonte xamuñ ci dara dañu dem ba léegi mu mel ni discours yi dafa soppiku li tax ma fàttaliku ko mooy li nga delloo si léegi yoon wi dara foo diwu ko du ndigalul yàlla ak yonent bi si Bamba lu rek la digle woon doo doon ñu fi bàyyi woon ñaan digle waaye léegi dañoo dem ba mel ni discours yi dafa sopp ko lu bari ba ñu bari bu buñ toogee taalibe yi lañ leen di wax dootu doon ndigalu yàlla dootu doon sëriñ bi te am ci ñoo xam ne loolu lañ jàpp ne loolu mooy dëkk ndax jàpp nañ ni ki toog di wax ginnaaw ci askan wi la bokk rek lu mu wax loola waral si ko mën a dégg loolu mbàkke loo xam ne bëggoon naa ci ak leeral tuuti rek ba xam ndax dañu war a delluwaat ci njàngale mag ñu nekkoon ak si Ahmadul Xadim nit ki ñu yaroo ci këram ci këram si Abdou Khadir ku mel ni man wala ku yaroo ci këram si Abdou Lahad daan gis nañ daan diglee muy lii nga wax lañ daan diglee mooy li yàlla digle ak yéen bi digle tey nag mu mel ni discours yi dafa tàmbalee sensé boobu taalibe boo xam ne bii bëgg na maanaam conserver ak taalibeem ba du yàqu naka la mën a dundee ci dundee wu mel noonu sëñ bi jërëjëf Balaye Sëñ jërëjëf dafa am nit ku ñëw ni dafa bëgg a jébbalu waaye nag dafa bari lu ko jaaxal ma ne ko lu jaaxal mu ne ma la ci jëkk mooy dafa am ñoo xam ne ñoo wax ne jébbalu dafa arab kenn waratu jébbalu ci nit ma ko loolu seenu déggeen la ñëw waaye ahlu tasawuf jébbalu gi ñuy wax jaayante lañ ci jublu te jaayante dafa sax ci alxuraan ginnaaw ba la ci doon ab jullit isaa jaakal mu'minaatu yu bàyyi ànd ak la wax ala allah yushrikna billahi shay'an jëbbu la muy tekk mooy jaayante fas yéene jëf ndigal yàlla da ngay seet ku la doy ci diine nga fas yéene fasanteeg moom gën a jëf ndigal yàlla ma ne ko jaayante ko wuñu doon jaayante ngeen te sona son ci isa jaaka mun naa toy bàyyi ne ko ala allah yushrikna billahi shay'an jaayanteeg yow ci nu duñ booleete yàlla ak dara wala yasriqna duñ sàcc wala yasnina duñ njaaloo wala yaqtulna awlaadahunna duñ rayet seen doom ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن لولو لا نكوي فري موي نيت كوي سي تي بير بنا فخا با انديل بنام كير بي دوم بو خام بنام كير بي جيرو لول مو ولا ياتينا دي وات تي يالا واتال واتال وات دي نكو دافات ولا يحسينك في معرفه دون لا موي تي لو باخ لو ندغال مو لن معرفه يانتي معرفه دي ديل جوسو واي نوني لي واخا الله لا بي جاينتي ييب لو man ko rek léegi kon ña ña wax ne jébul dafa araam ñooñu seen déggin la waaye déggin bii la ñu am ñun ñu al tasawuf muy muy jaayante nit ki ngir fas yéene jëf ni ko jàllee bàyyi tere mu ne ma boobu jàll na léegi ba ca des mooy sëriñ si dañu leen rawaan yi naan sëriñ si dañuy nangam sëriñ si di sëriñ si laa ma ne loolu bu mu la jaaxal booy dugg ci yoonu murid yi na nga xam ne ci yoonu sëriñ Tuubaa ngay dugg benn sëriñ fi nekk muy sëriñ Tuubaa ñi des ñëpp ay jawriñ la jawriñ nag yaay tànn jawriñ mën naa doon jëriñ joo xamante ni dalay woo ci di la jox ay masala bàyyi la nga dem mën naa doon jëriñ joo xam ne dalay jàng lu xasida mën naa doon jëriñ joo xam ne day ànd ak yow ngeen tëgg di fecc mën naa doon jëriñ joo xam ne maanaam jëriñ dina dal waaye nag da nga xam ne jëm yoon suñu ci nga bëgg a dugg na nga tànn si jëm bu fekkee ne nga xool jëriñ joo tànn mu ànd ak yow ngeen di taxawaat léegi doote baax yàpp la waaye waaye yoon yoon suñu tubaab ku ñu fii jëppale jëwriñ dañ si jëppale te jëwriñ it la lay war waru garam ci ab tool mooy na la sas sas boppam di liggéey ngay liggéey ma ko yow xamal sas wi nga nekk ca loolu yi mooy sa warugar si diggante jëriñ mu ne ma léegi lan moo war ci su ma waaw dañ ma léegi waaw dem na ba ba ba ma léegi kon léegi ma jëbla ci yow fi mu toll nii lan moo war sama diggante man li la war man mooy lépp loo xam ni yoonu yàlla la mbaa ma di ko liggéey mu jëm ci yàlla naa la ci woon bu dee sama mbiri bopp nag sama taw ko bopp mooy kere mbaa sama nangam bopp kooku sama mbiri bopp seen nekk sëriñ bi waaye li wér daal mooy li ma njëkk a wax muy yoon bi yëpp sëriñ Tuubaa mooy sëriñ bi ñi jël si ay jëwriñ bi yaay tànn jëwriñ nag waaye nag na nga xam fi nga jëm ba noppi doo ko jóg waaw nit ki bu xamee fi mu jëm bu toppee ci ginnaaw kuy mu topp ci ginnaaw bu doxul mu signalé ko jàll wala Sadio Kane loolu dëgg leer na sëñ Fallou Ndiaye salaamaaleykum damaa bëggoon xam rek taale bi nga xam ne daa bëgg a jébbalu ne daa bëgg a ut sëriñ bu mat sëriñ moom imtixaan boobu muy def sëriñ bi nan la koy defee ba xam ne kii mat na sëriñ. xam nga sëriñ bi sëriñ bi ci boppam suñu mag bi nite ko laajoon ne ko nit ku jébbalu ci sëriñ ba mujj mu gis sëriñ bu ko gën a doy ci bii mu nekkoon ndax mën na fa bàyyi bii dem jébbalu ci bee. wala mi ci biir mañ سين بني كو بلا مالا جيتون دام لي لير سين لان لان سين نيت خيت نيو دا فام شيخ التعليم اك شيخ التربيه اك شيخ الترقيه شيخ التعليم دا فام نيت انشاء الله موي سين بو خم جانغال لي فام نيت انشاء الله با تي ديك موي نا ام خم خم بو لير بو ام تيس لاي تي القران والسنه ñaaral ba na am ci lam yo ko ma lay lo xam do wax na ngay natal ba xam ni la ci doon def ñettal ba na am ci dama ko tank rek na am ci mantal tan ni lo xam ni xam ni li léegi jëkk nga ñëw di ko tase si ne boo xoolee nag yow yaay xool ay situation sëñ la boo xam si daal dana xam jamono yàqu-yàqu jamono dina ko xam xam koy défendre mooy suñu saal bi fi nekkee doo ko naatale waaw naka noon ne fi mu toll nii boo ko boo ko bëggee wëree noonu doo lay demee léegi bu fekkee da ngay dem pour mu tegal ci aw yoon léegi yaa ci bala ngaa dem ko ngay xool noonu léegi na xam jamono na xam nit ñi xeeti nit ñi qualité nit ñi ndax nit.

jikko yi mu doon seexum rabbi ndax léegi bu lu nga ñëw di ko testé mën naa nga testé ñoom jikko ñu jikko la jaar ci moom ba xam fu ñu jaar fu mu leen jaar la buñ xam ne baax na buñ jàll te léegi nga tey ñaar sëñ xam naa ne pour euh, dolliwaat benn laaj rek ndax ci wàllu tarbiya ba tey kon ku newoon nañu sëñ bi am na ko fu ma sonn seet si njaareem ne ko mbàkki na dama bëgg nga defar ma mun ne ko defar de taqoo la laaj yàgg mu ne ko bal bal fàlli di defar naa ko léegi gannaaw comme ñun fi ñu nekk daa xaw a sori yenn saa yi duñu gis ay ñoo xam ne danañuy taqoog ñoom que amul beneen bunt boo xam ne sëñ danañ ci mën a jaar lu demee ne euh, mbindum sëñ bi ak yooyu amu ci yoo xam ne xëy na buñ ci taal bi saxee xëy na dana mën a defar bisimilah sëñ bi loolu loolu day mel ni moom la sëñ bi doon tontu ci in lam tulaaqi muslihan fal taktafi ma bihi nasa xiyaaru salaam boo dajee woo ko xam boo dajee wut ak ku la mën a teg ci na nga doy loolu mooy lañ la doon digal ci ay digal ak i tere ngay di def ndigal yi di bàyyi tere yi la ca des mooy xës di sëñ tubaab yi nga taxaw na léegi ma bihi nasa xiyaaru salaam loolu lépp ci xës di sax sëñ bi dañuy def bootum tarbiyee ndax day wax ne kitaabati faaxa siyooxa tarbiyee wa kulla xeyr da nga gis ni kuy jàng xasida bu mu jàng mu am ci ay jëkko ak defar loo xam ni mënoon naa taxaw seexum laaj bi ba gën a màgg te loolu nekk na. Ah. waaw moo tax xasida mooy tarbiya gi suñ ci waa dénkaat. yaa ngi ñu jàll eh, ndax man de dama fekkee jotaayu Serigne Saliou yu bëri Serigne Saliou wax ak man tamit guddi lu bëri. mooy mu mel ni mus naa wax sax ne yow de mbaa bokkoo ci ci jàpp ne Serigne Touba daa faatu waaw maanaam daf ñoo yar ci ne Serigne Touba mos ta jóg jamono waaw dimbali ñu waat ci wàllu euh, ci xeet goo xam ne xam nañ ne kenn ki kepp la du mos a jóg jamono moo fi nekk faw kon Euh, nii ñu ñuy ñuy dundee sëriñ bi nga xam ne xam nañ ne jugu fi waaw dañuy laajte nan nan biñ ko gisatul ci suñuy gët moom sëriñ Saliou naka naka la naka lañ koy dundee ba nga xam ne du ñu juwoo mukk ak moom loolu lañ doon laaj day mel ni soriwut ak li ma tontu woon ngir ngir li ma wax ni sëriñ bi mbuutum tarbiyaam daf ko def xasida yi. suñu Saliou xasida yooyu moom la bàyyoon na doome ndax jaxasoo ci war bu fekkee daanaka def bu yàgg yéen mujj na mën a te gone yi sëñ bi bu fa gëjoon lu mat nangami at bu ñëwee nañ meloon tarbiya ci sa mu mel ni kon mbuutum tarbiya gi dafa nekk ci xasida yi mu jaam loolu daan wax ne na ngeen ko fonk ngir day dàq seetaan daanaka daanaka yar yar yar yar yar yarub murid daal xanaa dara tënawu ci fonk xasida fonk jotaay yi kenn ku ne nag di di di roy ci sa morom lu mu la lu mu la rawee. ndax sëriñ bi dañu woon léegi boo gisul seexul murid bi te gis àndandoo wutal àndandoo àndandoo boobu nag mooy koo xamante ni léegi da ngay jël ci moom muy jël ci yow. waaw mooy wa waru fuqatun wax ne ixwaanun lahum himamun àndandoo te mooy mbokk yoo xamante ni dañoo am ittee jutale ji nga am boo fee ngeen dimbalante ci seen biir.

ko sànni si rek loolu mooy loolu mooy kii kon daan jox sëñ mu tontu rek ci laaj bi mbokk mi doon laaj. da doon laaj ndax xasida asmaa tax ndax sëñ bi ko bind wala dañ ko ko dañ ko koy askanale rek. asmaa utaale de dinaa gis xam nga moom du ak xasida léegi day mel ni aaya yi alxuraan yi wax ci wàllu tawhid moom lañ dajale tuddee ko asmaa utaale euh, léegi dinañ ko dugal ci biir xasida yi waaye di lu leer nañu amoo ci li ma gën a jot daal mooy kenn na ko dajale ko waaw.